Messi ouais, ouais, ah, bah, bah, va récupérer. Ah, jërë ngeen jëf mbokk internet yi suivre seen li xam ne moom mooy Info 7 TV di dox ci yitte askan wi takk ndeer bi leen di topp di leen jox lépp lu ngeen di teewoo mbokk ñu dëkk ngeen ci émission bu bees tàq ñu koy wax Info Sport di am tous les vendredis ñu leen di jox programme cinq grands championnats yi gën a fees ci Europe gis ngeen ko dañ koy doore fa xam ne moom mooy Angleterre septième journée suba ak jàmm lañ koy door bu 11 jotee même heure 14h Chelsea ak Southampton lay doon bu 14h jotee heure Leeds United ak Watford lay doon même heure 14h ak Newcastle lay doon gis ngeen ko bu 16 h minutes jotee Brighton ak Arsenal ñooy laale bu ñu demee nag ba ci dimanche ba lañ koy wéeli di bu 13h jotee Crystal Palace ak Leicester lay doon gis ngeen ko même heure 13h Tottenham ak Aston lay doon même heure 13 gis ngeen ko noonu Aston West Ham ak euh, Brentford ñooy laale bu ñu ba 15h trente minutes temps sogu weekend bi ci diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Mohamed Salah ñooy laalee ak Manchester City max boobu nag di ngeen ko dund en direct ci Info 7 ak 2 TV mbokk yi gis ngeen ko bu ñu fa jógee dañuy dem fële nga xam ni moom mooy Espagne gis ngeen ko huitième journée door nañ ko sax tey jile ci vendredi max ba jeex na tàkk ci diggante Atlético Bilbao Athletic Bilbao ak Alaves gis ngeen ko Athletic Bilbao moo ko noggatu benn bal ko fëgg dañ koy wéelindi suba bu douze heures ko noonu huitième journée bi Osasuna ak équipe bi nga xam ne mooy Rayo Vallecano ñooy laale bu ñu demee ba quatorze heures et quart jot gis ngeen ko équipe bi nga xam ne mooy Mallorca nga xam ne premier la ren ji la ak Levante ñooy laale seize tegale minutes Cadiz ak Valence lay doon bu demee ba dix jot nag soogu weekend bi foofu la Liga Santander wala Liga BBVA gis ngeen ko noonu mi ngi noonu Atlético Madrid ak FC Barcelone ñooy laale loolu dix neuf heures lay doon di ngeen ko dund en direct mi ngi noonu de Vigo match boobu bu 12h jotee lay doon loolu ci dimanche bi lay doon mi ngi noonu équipe bi nga xam ni moom mooy Espagnol bu Barcelone ak Real Madrid 14h15 lay doon 16 bu tegalee 30 minutes ci dimanche bi gis ngeen ko noonu Getafe ak Real Sociedad ñooy laale gis ngeen ko bu 16h30 jotee même heure Villarreal bu euh, Boulaye Dia ak équipe bi nga xam ne mooy Real Betis ñooy laale bu 16h30 jotee ci dimanche bi lay doon Granada ak euh, FC Séville loolu lay doon lii mooy programme huitième journée ca Liga Bébé Yubayab fële ca Italie la ñuy dem yéen a ngi wéy di topp seen bi li nga xam ne mooy Info 7 takk ndeeru askan wi gis ngeen ko septième journée door nañ ko niki tey gis ngeen ko Cagliari ak euh, Vryss ñoo doon laale gis ngeen ko un bi partout la ñu def suba lañ koy wéyalendi ci samedi bi bu 13h jotee gis ngeen ko équipe bi nga xam ne mooy euh, Salernitana ak euh, Genoa ñooy laale mi ngi noonu Torino ak Juventus de Turin bu 16h jotee lay doon ci samedi bi Sassuolo ak Inter de Milan bu 18h45 jotee lay doon ci samedi bi gis ngeen ko Söderam bu 10 h jote jotee loolu ci dimanche bi lay doon mi ngi noonu euh, Verona ak équipe bi nga xam ne moom mooy Aspia max boobu bu 13h jotee ci dimanche bi lay doon Sampdoria ak Udinese bu 13h jotee lay doon Fiorentina ak euh, Naples bu Kalidou Koulibaly bu 16h jotee lay doon AS Rome ak euh, Empoli bu 16h jotee lay doon mi ngi noonu Atalanta ak AS Milan bu 18h45 jotee lay don Allemagne la ñuy dem ba léegi info sport ngeen di teewlu ci info 7 TV gis ngeen ko septième journée foofu li nga xam ni moom mooy Allemagne Bundesliga gis ngeen ko noonu euh, Cologne ak équipe bi nga xam ni moom mooy euh, Bri Bri Brinting euh, Fortan gis ngeen ko 3-1 la ko fëgg max boobu sàng le jeex mi ngi doon suba lañ koy wéele di bu 13h tegale 30 minutes gis ngeen ko Borussia Dortmund ak Augsburg lay doon Wolfsburg ak Borussia Mönchengladbach max boobu 13 h loolu tamit bi lay doon gis ngeen ko Stuttgart ak Hoffenheim bu 13h30 jotee lay doon Hertha Berlin ak Fribourg bu 13h jotee lay doon mi ngi noonu bu 13h30 lay doon 16h30 RB Leipzig ak Bochum lay doon gis ngeen ko Mainz ak équipe bi nga xam ne mooy Union Berlin bu 13h30 lay doon Bayern Munich ak Francfort max boobu bu 15h30 ci dimanche bi lay doon mi ngi noonu Bielefeld ak équipe bi nga xam ne mooy Bayer Leverkusen 17 trente 30 lay doon ci dimanche bi dañuy toxu ba léegi info espoir ngeen di teewlu ci Info 7 TV dañ naan coow dem fële nga xam ne moom mooy réewum France gis ngeen ko noonu door nañ ko tey jile neuvième journée bi diggante équipe nga xam ne mooy Lens ak Reims gis ngeen ko Lens moo fëgg ñaari bal ci dara da koo ba toog ci kawam di noos gis ngeen ko neuvième journée bi suba ci samedi bi lañ koy wéyleen bu 15 heures jotee Montpellier ak Strasbourg lay doon gis ngeen ko Nice ak Brestois bu 19 heures jotee lay doon ci samedi Angers ak Metz loolu tamit ci dimanche bi bu 13h jotee lay doon ci dimanche bi même heure 13 gis ngeen ko Lorient ak Clermont mu ñooy laale bu ñu demee tamit bu 13h jot Monaco ak Bordeaux ñooy laale 13h même heure ci dimanche bi nant ak eh, Estac ñooy laale gis ngeen ko 15h même heure Olympique de Marseille mooy voyage dem fekk Lille loolu bu 15h jotee lay doon max bi koy tëj nag 18h45 ci diggante Saint-Étienne ak Olympique de Lyon lii moom mooy programme neuvième journée ca Ligue 1 française acca loolu lañ fi amoon rek ci ay euh, gis ngeen ko doon leen ko jox ci li nga xam ne mooy programme cinq grands championnats yi ngeen fës ci monde bi max yi ci gën fës nag gis ngeen ko gis ngeen ko loolu dimanche bu quinze heures trente jotee diggante Liverpool ak Manchester City boobu di ngeen ko dund en direct fii ci Info 7 groupe leen di jox lépp lu ngeen di teew fële ca Espagne nag max bu fa gën a fës suba lay doon ci samedi bi bu dix jotee ci diggante Atlético Madrid ak FC Barcelone bu Ronald Koeman boobu di ngeen ko dund en direct fii mbokk yi jaa jëf luy leen di ànd ak ñun takk ndeeru askan wi info 7